48 minutes RFM matin di woy ba léegi Mamadou Mouhamed Ndiaye egsi na maanaam li ci des bëreetul. saa yoo egsi rek dafa ni ay 5 minutes ngay desee am nga am nga 10 minutes quand même. Hmm, gis nga de ñu may ah. catale. Ah. waa service commercial. ñoom la ñoom rek joor nañu def. sant ak muñ di sàkku ñaan la nuyu. fay naa la leen bu baax a baax. Hmm, kenn ñoom. ñu ñëw ci xalaati joor. waaw waaw waaw waaw waaw. Eh, ma xamul man fi mu ne ban laa ci war a jox auditeurs yi ne chaque jour ñu yéemu ci xalaat am na fi koo xamante ne ndeysaan. Mhm. kooku moom euh, suñu sëru bopp la. waaw ndóoya. Mhm. nee na ma dem naa ci page xalaat Facebook. Mhm. gis naa fa xale bu jigéen bi jéng boppam mais kooku. ki ñuy chaîne xanaa waaw loolu kooku te conseil contre l'humanité kooku gars yi. crime contre l'humanité la lay chaîne moom xoolal bañ ko abolir gore la waroon a jeex. lu ko abolir. Victor xaw ma naan. Solskjaer. <laughs> John bu ma dugal waaye man danga may laaj yeneen. Hmm. danga may laaj yeneen ñi ngay laaj sama xarit nga may laaj. ku sanc daaru musti yooyu nga may laaj. ay ca yooyu boo ko laajee sama xarit wax la ko. ku sanc daaru ah, musti ah nekkuñu kii njàngaleem diina bàyyi ba ustaas ah. <laughs> John. waaw. xalaat bi may door ak uh-huh. inspecteur moo ñëw. inspecteur mu ne inspecteur Sow. waaw xam nga moom fan yee daa tooyoon. D'akor. Sen akor dokbe mette la to. Diray. Khamne khalas bi mwenye ne, bi mwenye jok oditeri lan la. Zedet. Ki ben waye la bo khamne, ne mhm. ne loma droumne katengi, 8 an. 8 an waw. Mwenye tou poti, ben nan bo bonnke amel.

bu xasee ba dépassé cent mille jàpp deux cent mille da koy diisal joor. Mm. waxaatal xëy merci beaucoup. <laughs> waa ji daal sonn na trop waaw. ay ca kon jox ma. dama ne kii euh, ab man dama ko liggéeyaloon zone Mauritanie ma daal di ma daal di ma ma daal ko defal benn devis peinture c'est un million. un million mooy lan. un million yi mooy main bi. Mm-hmm. moom lañu tombé d'accord. mu daal di ma yóbbu ma mu daal di ma engagé ma yóbbu ouvrier yi ñu dem liggéey ji mu daal di ma defar décharge de cinq cent mille. ñaata ouvrier nga yóbbuwoon. yóbbuwoon naa lu mu bu ma jumul si wala neuf. ouvrier ouvrier. passé yëpp ci un million bi la. lépp laa laa laa laa laa lañ man maa lañ ko fay. restauration ak loge hébergement ak lépp. ba ma bañ kii yëpp un million sax bañu bañu liggéey ba un mois lañ fa def ñoom. si liggéey waaw bëccëg nga ne doon fay xanaa. laa doon fay. ñaata quatre mille. waaw quatre mille léegi nag euh, ba ma ñëwee sax li li ma meneen ma moo kii woon sax moom da si la yem un million yi ah, si la yem bañ ma defee ma defee calcul booy yëpp après un c'est juste un million hmm. waaw léegi nag ma fay leen seen xaalis. mais aw ma si dara. waaw da nga nangu liggéey te doo am si dara. non bon ensuite parce que xam naa man nekkuma foon booy ñoom ñoo fa nekkoon. mais bu mu fa nekkoon xëy na peut-être du egg du demee noonu parce que dinañ liggéey comme nu mu waree bon ça bon kooku moom mun naa boo daanee fii jóg fi waaw voilà. noonu la commerce mais moom. Euh, cinq cent mille res reliquat cinq euh, reliquat euh, un million yi mhm. cinq cent mille bu des la ma mënul fay nangu fay da ko mën a fay mais nangu ko fay mhm. lii jikko jikko la xaw ma si moom xaw ma lan nangu maa fay booba tey maa ngi koy topp top na ko ba sonn nag mu mënumatuma si dara mais nak legui nak motax dama ne dam yow li fi comme ça mom mu meuna xam ne man sama xaliss bi tay man ma kay toppee sama xaliss bi sous traitant la fofu ba ba tay ni fu mu nek ni parce que jógewuma fa wa legui mais uh-huh. waaw mais amna lu tax euh, ñu parce que euh mënuma ko fi wax parce que mu ngi ci loxo yoon mu ngi tribunal man ak ñom ñi ngi tribunal man ak ñom yow yaa entreprise bobu man maa mom sama entreprise bobu

ba ma yóbbu leen si yoon. loolu bokkut ak 500000. bokkul ak 500000 loolu bu ma ko waxee fii léegi nga daw génn daw. mosoo ñu si rek. bàyyi noonu rek naa la fii nga dëkk maa maa ngi fi laa dëkk nañ si nekk naa la indil kayit leer. Hmm. mais nag bëgguma di dugg xaaral ba sa kanam. waaw yow kon yow da ngaa fëgg bunt yëpp ah benn tijjeeku wut ngir nga jot ci waajee tax nga ñëw rajo. moom la leer naa ñu la comme que lii lii la bëgg bu dee lii la bëgg ma egg seen moom. mu réagirul ma wax turam si rajo bi. danoo sa ko si rajo bi waaw directeur de l' exploitation la léegi man bu waxul bu réagirul ci diganté bi ba ci fan yi ma jaar wax wax lépp lépp lu mu démé man ak mom directeur d'exploitation moko yoral yoreel xaalis fi ñeneen ñoo xam ne ñoom directeur ki ñoo leen yoral xaalis <laughs> waa prêt à porter bi ñoo ma yoreel xaalis man dama koy wax sa baat bi ci kaw. <laughs> waa prêt à porter bi. alhamdulilah <laughs> dama yàlla baal. bugus wax ci boog. boobu xaalis la de du xaalis la. oui ma ana bu ma tee million xaalis la. xaalis xaalis waaw xaalis la ma fay waay yow moom. sponsor sax dañu dul bàyyi ngay football maa ngi xaar ba ngay football rek. mën na la. damaa dégg ne waa kër gi dañuy football. dama koo dégg. xoolal mi ngi maye mi ngi maye. Oui, ma. Oui, ma. Ibinalabalab ba? oui, ma. Wax ma. Euh, ñak fay day mbul ci seen de. Lo hmm, rek la la <laughs> xate. Oui, ma. Légui lutax ñaar xam ñett xamuñu? Ah. Ñett ak mbolo mi xamuñu? kon baax na. déedéet baaxut. oui ma wax ma wax ma. way wax ma tell me. Dia kita ada yang di football. waaye bu ma la jëfee ndax moom. richesse la. yaa na yu yoo xamante ne faral di wax rek. nit boo bëggee kay parkaan sorewul dem hmm. fa golo boo nuroon nga jàpp ko foofu ak moom ñoo xam ni man du ma ci dugg joor ñu ñëw Pape Balla. RFM Mbacke. affaire bu garaaw. Ah. waaw. ah tur bi sax sañu ma ah. lii. dina war de def kii gars yi ñoo ko jekku def ko def ko jëf ju ñaaw. Mhm. xamu ñu ko def est-ce que. déedéet ah, jox ma. waaw maaleykum salaam. waaw mën laa dëkk laa tudd. maa ngi dëkk nag Louga waaye nag yàlla def na Touba ji laay liggéeyee mhm. ci laa am màkkaan jamono ñu toll nii mhm. waaye da ngeen ñëw euh, seet si tey lan moo nekkoon euh, sa tawat wala sa jafe dama fee ñëwoon daal am lu ma naqari loolu ba ma juddoo ba léegi tey laay tey laay soog am na ma naqari ndax mbir ki deemu dem woon côté Kébémer si benn dëkk bu ndaw ba ñuy wax Ndakaar Silla doon di wër di jaay ay parfum ay cuuraay bi ma demee fekk di wër dëkk ba ba si yàgg ma dugg si benn dëkk kër ma duggee si kër gi di jaay dugg si verandaay ma duggee si verandaay bi rek ma gisee photo Sëñ Tuubaa yi rek duggee si kër gis waa ko Sëñ Tuubaa rek sa xolam lay sedd guy ma dugg si kër gis waa ko Sëñ Tuubaa rek sama xol sedd guy muy sëñ Basiiroog yëpp léegi man leen man de cuuraay laay jaay ñun ma cuuraay la man leen cuuraay ak parfum fu ñuy wax tuuf podoru maam jaara bu so ñun ma fii de waa kër maam jaara lañ ndax xam ne si moo yor daayira maam bi fii la dëkk ah ma daat gën a amaat dal bu baax a baax a baax ma doogee soxna si ne ma fu ñu koy def man ko poudre bi de si ay foqtaan ak ay xasida ak ay yooyu lañ koy def benn waay boo xam ne si mu sol mbubu isbu ya bu mu génnee ma comme mbubu isbu la sol man naw ko loolu moom it ma toog ni ma toog bi mu ñëwee nee na moon nuyu na ma waaye man Ndiaye wax dëgg yàlla fàttaliku ma sa santu ma sax man fu ma ko nuyoo bi ma ko bi mu demee ma defaral ko parfum bi mu xool man ko mun ma fuñ koy def man ko lii de dañ koy def si ay xasida ay yooyu mu xool ne ma lii de neex na lool bi mu neex na duggaat si biir néegam ma jekk jekki rek seen ko mu dugg si biir néeg yaayam di dugg di génn di dugg di génn man ko waa euh, du toog ba yàgg rek yaayam daan na ma euh, benn wooy benn frak papaam bi mu ñëwee daan ma sëñ bi salaamaaleykum man ko salaam man ma sëñ bi lan nga def kii man ko kii lan laa ko def bu demee nan mun ma kii ne dangaa jël ay bagage am man ko bagage yan mun ma neen ay waa yàlla am ko nga koo jël mu tiit lool jaaxle lool affaire bi jëmee ma kaw léegi yàlla ma dimbali mooy Canaba Seck kër sëñ Madické Seck borom yàlla nee na gi ma fanaan ginnaaw yàlla moo ma xaw a dimbali bi loolu amee ma daal leen man kat kër gi ma fanaan mooy Canaba gi ma fanaan numéro ki ma fanaan mi ngi nii muy doomu sëñ Madické Seck te xalifa bi léegi mën naa leen jox numéro am ñu jël numéro bi doyu leen nee ñu ñu ne ay pël lañ jota ñu kenn xamul ma xam ne ne fi suñu sall rek dëkk bi fees del ñu daat may wër ma xam ne ne su ma defu ma gaawul jën dëkk bi rek bu nit ñi dañ ma fay rey léegi si dara ma ne léegi li bëgg mooy wit leen oto dugg si dem Canaba bu ñu demee cana ba fekkee xamuñu ma nag fu ñu xam ne jug ñu ngeen yóbbu ma fa bu ñu demee cana sëñ bi daal leen kii de si man mii la fanaan ba cuuraay lii ak parfum bi nii la ma ko joxe maa dugal maa ko dugal sama oto yóbbu la ko cana ba Kébémer ah biñ doon amee ba toog tuuti rek waa dëkk ba mu sol seen oto ba mu fees ñu jóge woon tool ñëpp ak seen ngànnaay ñëw fekk ma si biir kër gi xarbal ma si biir saal bi ba sëñ bi da leen ne mujj génne saal bi ñun ko da nga delloo ay waa yàllaam baa ñu rey ko mu mu mu mu muñ muñ mënatuma koo muñ mu aalu foofu si ñoom ñun ma nag danga ko def léegi bi ñu deel amee sëñ bi woo ñi mu war a woo ñëpp ku mu war a ah, ñun ko ñu ne Maxtaar Njaay mi de xame wuñ ko si caaxaan loolu alxuraan lañ ko xame ak da nga maam liggéey rek lañ xamuñ ko waaye nag loolu lépp taxul ñu gëm ko rek maire bi ak bàjjen bi ak yaay ji ñoo nga fipp ne moo moo ko def moo ko def ah bi loolu amee sëñ bi jaaxale moom it comme lii la daal am na benn policier bu dëkk si kër gi bu ñuy wax um, um, wax ànd ak moom ngeen dem police bu lu yoon may rek ngeen xam ne loolu la yoon may bi ñu demee police it maa moom mi nga xam ne si waay moom la doon damaa jël ay waa yàllaam police bi téeñu bi ñëwee ko yow danga ne kii jël laa jaar si waa yàlla mu ne waaw mu ne man bi mu génnee ba ma koy nuyu rek laa sentir sama yaram ne kii nan la war a nit ki ñëw këram nga naan ko nit la am du nit na ma du nit dafa mënee ma demee si biir néeg bi rek laa xool gisee sama affaire wàññeeku mun koy da nga wàññeeku wala da da ko yóbbu nga waxoon mu ne dafa wàññeeku tolloon nii police bi ne ko génneel ma xool bi mu ko génnee xool mu mun ko tolloo ni policier bi daal jël dig bi ne ko léegi kon natt ko ni mu tolloon loo xam ne ni mu muy nakk nakkal policier ne ko yow am naa fekk ngeen yéen nii ngeen defaree kii da ngeen ko naroon rey ba pare indil ma ko fii si loolu dara li mu yàlla dimbali boo xam ne si si policier bi liggéey lépp moom it si kii ma si ma ñi ma témoigné bokk seen leen harcelé kii alxuraan képp laa xam man moom ma yar ñooy fawandoo ñoo defandoo lépp waaye xamuñu ko si caaxaan loolu dal ma si biir dëkk bi muy dëkk bu ñuy wax Ndakaar si la waa dëkk bépp ko kenn añu fa ngir daan ngir man rey ma rek lañ jublu woon yu bari nag dafa am yu mel noonu ndax ñun dañuy wër di jaay si kër yi di dal càkkantool yoo xam ne si métti métti métti ba bëgg képp koo xam ne si kuy wër di jaay wala képp koo xam ne si yaa ngi dem si kër yi nga bàyyi xel yooyu ba borom dëkk yi ñu buñ nit ñi dee ñëw si ñoom ñu bàyyi xel si ñiy def wëyute ak ñu dul jàng naa baat bu yute wuyute wuyute eh. ah wuyu mm-hmm. ma wax ma gis nga li dal dem ci kër mm. mm. mm-hmm. mm-hmm. di jaay am ko nuyu kooku ne ko kaay da ngaa yóbbu li ma yor dañoo mujj dem ba police def misir xam nga misir xam nga misir mesure waaw dañoo dem ba police misir yëf yi ci lañ gis ne dara juguf déet kan moom daa njëkk ne dañ kaa jël waaw mu dem ba ci yàgg ne déet daa wàññee waaw moom ci boppam xam nga dañ ko naroon sànq ci yaay ma liggéey rek billaay waxal waxal de. joor waxtu wi jot na ma dolli beneen wala. xoolal. Ibrahima jiite Ibrahima man football ma. Boy Ndiaye wax naa la ko. sama ex sa xarit. waaw sa ex sa xarit joor. Ibrahima jiite. waaw kooku sama xarit la woon. Hmm. kon baax na. wax ma ba suba. Eh, waaw. déedéet dafa am loo ci waroon. non Mamy Mbengue moo mën ne xalaat mbuur. Hmm. waaw sama rakk ju baax. Ah, ngeen ko <laughs> la man ci men. waaw oh. dañ jël daal. ah mais c'est normal oxygène la jaar nag. ah d'accord ñi jaar oxygène ñëpp dañuy dégourdi. Hmm. ah non on est très dégourdi. d'accord la ne nous étouffe. <laughs> gannaaw wax nga pare nawetaan ci nawet non gannaaw wax nga pare xamoo ñun loolu la promo nawetaan ñun mm. kenn ku ñu ci doole ñun waa rajo oxygène mm. moo tax Soda bu ñëwee fii di toj sport mm. euh, comme Pape Balla mi nekkoon mi mi nekk fële euh, euh, formation de base la d'accord ñoo fi gën a aay ñun waa oxygène waxal kooku noonu mu fayam sama xaalis. <laughs> waaw d'accord neuf heures tegal na ñaari simili di leen jaajëfal bu baax dig daje suba incha allah mu nekk avant dernière incursion ci semaine bi ñu leen di ñaanal kenn dalum jàmm.